pour ñu daanal ci loolu. parce que mu ngi wax ne euh, position euh, justice bi ñuy wax nit ñi waruñu waruñu ko xarab euh, di di di di outré ay magistrat moi je dama ko bëgg a rappeler ne c'est un magistrat bu taxaw démissionné moo ñëw taxaw ne justice bi doxul c'est pas mois journaliste qui le dit donc des des députés des euh, des des avocats l'ont dit donc te ñooñu c'est des professionnels du droit ils travaillent si droit la ñuy liggéey donc man su ma ñëwee tey wax ko Euh, moom bu taxawee ne ma non non dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy wax loo xam ne euh, amul man dama ko koy considérer mais les faits sont là léegi loolu dama ne chacun peut avoir son appréciation ci fonctionnement justice man noonu laa koy parce que da may wax ne lu amul man man loolu man noonu laa soo ne ma dama far te faruma dama lay wax ne li nga wax amul. non boo boo confirmé ne dañoo violé ay constat laay def man c'est un constat que je fais. oui mais le constat c'est que avec des des des exemples précis. parce que da nga constaté loo jàpp ne na parce que bi nga xam ne donc c'est pas une appréciation. tax ma ne la donc loolu amul. c'est une appréciation. je j'utilise des exemples précis. c'est une c'est un constat. Euh, wax nañu wax na itam ne euh, réew mi il faut mu nekk si mu bañ a nekk si anarchie euh, tey bu ñu tolloo ci tension bu mel ni on a eu Senghor on a eu Diouf on a eu mi nga xam ne jëflante woon na ak Macky Sall su amoon tuuti euh, haine bi nekk ci Macky Sall wala tuuti soxor wala tuuti gis nga nguur da ngay jéggale di jéllale loolu on le retrouve pas chez le président de la République parce que Ablaye wat moom fii la wax ne Ablaye Wade moo ko jox ay milliards Ablaye Wade ne ko mosuma la jox dara bu fekkoon ne Ablaye Wade il ne l'a jamais non non non gis nañ ko fii. Ablaye Wade bu fekkoon ne. xam nga fu ma dul jubóo non non il faut ñu léegi da ngay xam nga débat bi aussi da ngay bàyyi ba après non non non fu ma dul jubóo non je peux vous rectifier tout de suite. parce que tout simplement il l'a jamais dit. on donc aussi Abdoulaye Wade vous pouvez pas sortir fan la ko waxee Abdoulaye su meloon ni Macky Sall du yegsi fii mu yegsi parce que il avait tous les moyens empêché ko mu mu mu yegsi fi mu yegsi mais Abdoulaye Wade le grand démocrate qu'il est moo tax ba mu permetre Macky Sall yegg si. d' accord Macky Sall nag na delloo naar bi xoromam. moo gën li mu. alors lan nga lan nga Sénégalais yi vécu. xam nga ba muy nekk président. c' est le peuple fal je vais vous dire je vais vous dire une chose. dañ ko fa fal gis nga dañoo wax ma te léegi soo gis nga Ablaye Wade. ak ak ak président Macky Sall wax ma maa nekk yow Ablaye Wade. réeroon nañ politique réeroon nañ politique mais dans le respect. ma ne maa ngi politique mais dans le respect parce que le président Macky Sall moo. moo Abdoulaye Wade moo su agressé moo su agressé des paroles virulentes à l'endroit de l'opposition. Au-dessus de la ceinture Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade moo nekk un grand homme moo tax Macky Sall mën a def li mu def nii tey il naa qu'à faire de sorte que réew mi bañ takk ci loxoom. c'est tout ce qu'on mais li ma ciy ah? mooy. Mm. li muy joxe comme exemple bokkul c'est pas comparable gis nga président Abdoulaye Wade ak président Macky Sall. seen bokkuñu sax seen compagnonnage seen compagnonnage ba nga xam ne dañ ko rafet lu ñoom ci seen bopp ku ci nekk rafet lu ko président Macky Macky Sall remercier gërëm président Ablaye Wade parce que jaar na ci loxoom ci formation politique. président Ablaye Wade gërëm le président Macky Sall en tant premier ministre parce que tous les projets yi nga xam ne moom la bëgg génne ko su fekkee ne su fekkee ne su fekkee ne séparé wu nañ politiquement. président Macky Sall mosul jël kaddu mosul jël kàddu teg ko ci président Abdoulaye merci alors il faut maintenant yow bu fekkee ne da nga am kooy jàppale te koo xam ne moom moo nekk sa xol contre le président Macky Sall ça vous avez votre agrément non mais Sénégal ñun ñoo ko bokk da ngay affiché nga jël ki nga xam ne moom ngay jàppale nga assumer ko moi je soutiens président Macky Sall soutenez qui vous voulez mais l'assumer moo gën wala Luc bàyyoon le Sénégalais je me mets face devant mais loolu mooy mbàjj di nga sangoo Sénégal alors que yow am na ko pété alors alors alors euh, on ne peut pas être là sur le dos de la presse sur la fonction pour dire que non je suis équilibré alors que vous n'êtes pas équilibré s'il vous plaît alors alors Alassane honorable votre parole votre position n'est pas la parler voilà gens vont continuer à parler que vous soyez là ou pas les gens ont parlé vous soyez vous plaît a des Sénégalais qui nous vous plaît hein s'il vous plaît, vous vous avez votre temps de parole. Kadior, Kadior, s'il vous calmez vous comme ça sur le président. calmez vous s'il vous plaît. parce que vous voulez argumenter et étayer votre position personnelle. c'est faux sur lesquels on peut poser les doigts. oui mais on peut non mais honorable s'il vous plaît ah. calmez vous calmez vous s'il vous plaît alors on enchaîne on enchaîne s'il vous plaît Kadior Kadior respectons nos téléspectateurs quand même mais li ngay wax du dëgg. non mais honorable ay nit ñoo ñu seetaan honorable ay nit ñoo ñu seetaan. du ko yaa ko fabriqué yaa ko fabriqué du ko indi di ko teg. Kajoor s'il vous plaît Kajoor s'il vous plaît alors alors ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi jégg